dañoo bëgg kaay baax gii. ni mu doone national. nii mu doone national. doon international doon international. nee na mu doon intercontinental. boo leen bëggee mu nekk nag. nee na bu dee da ngeen bëgg mu nekk nag. day nekk ci kaw jàmm ak salaam. day nekk ci jaww jàmm ak salaam. bàyyi ay wax. bàyyi teesante. bàyyi waxalante. mooy dimbali ngoy. mooy dimbali ngoy. dimbali askiya. dimbali leen yéen. kon jàmm jooju. nee na jàmm jooju. yàlla na ko yàlla roof. nee na ci kaay baax gii. loolu daal. loolu daal. mënu la ñàkk. mënu ñàkk. foog mu wax ko. foog mu wax ko. ngir ngir. kaay baax yëpp ñëw na. kaay baax nañu. ku ci nekk. nee na ku ci ne. boo demee fa nga dëkk. boo demee fa nga dëkk. ak groupe ba nga bokk. ak groupe ba nga bokk. wax leen ne. wax leen ni. saltige. saltige. Alaaji Maalik càmmañal ngoy fal càmmañal ngoy fal direk askiya Touré nee na direk alaaji askiya Touré nee na leçon bii ngeen dimbalee ko seen bopp boo leen ko dimbalee seen bopp dana gën a yaatu dana gën a yaatu dana gën a jub dana gën a dox le grand saltige de l'homme bu wax ji baree rek du yow loolu daal loolu daal. ko ñàkk a wax. nee na mënu koo bañ a wax. ngir. nee na ku ko féeteel rek. adduna yëpp. daan doo xam ne féeteel ay jaw. ngir nga am ndam rek. ajaratu ngoy fal. di nga am ndam. yàlla bu cat jàpp. yàlla bu la bind jàpp. yàlla bu la sunguf jàpp. yàlla bu la ren jàpp. nee na fii nga te sa tànk teg ko fa rek tey ñaan tey ñaan du ñaan farata la ñaan lu farata la ngir Sénégal nee na moo toll foo xam ne seen wax rek ci biir wax naa rek waaye may gis doo gis ku la ko wax dégg naa rek. loolu daal li arab naan xeerul kalaami maa qalla wa dalla dina gàttal wax ji. di nuyu bu baax jàmbaari Serigne Touba ji Serigne Modou Mbacke ibnu Serigne Moustapha Mbacke Balla Dior ak Serigne Saliou Mbacke rakam si suba ci suba ba ñuy discours ba ñuy discours man ta wax ngir bu moo waxee ngir bu waxee ronga ñi dina ñëw ronga ñi dina ñëw te boromam ndomba te boromam ndomba jooy jooy waru ko waru hmm? waaye daal waaye daal gërëm nañu Serigne Modou Mbacké. sant ko sant nañu ko. moo ñu jàpp yaa ñu jàpp. ñu jàpp ñu jàpp. ci biir bokk ci biir bokk. Cheikh Mountakha Mbacké Cheikh Mountakha Mbacké. Serigne Bass Abdou Khadre xamal ñu ne. xamal ñu. sëñ Modou mii. yéen conseil des mooy seen buntu. mooy seen buntu. ci kër Seexul Xadiim. kon ah. dinañ la téye Mbacké. taalibe mii mu àndal nag. njabootam gii mu àndal. ñi ñëw ñi ñi ñëwul sant nañu leen. gërëm nañu leen ngir sëñ Modou Mbacké lu ay def ci moom ñun la ko defal coono bi ngeen daj ngir dundal seen kër sëriñ sant la ngeen bu baax seer sekk mii toog te jiitu ci seen kanam nee na bi muy jóge France waxtu midi ñëw ngir ndigal nee na te ku ne xam na billet de dernière minute. na billet de dernière minute. cher na lool cher na lool. waaye sëñ Modou Mbacke jox ko ndigal mu jóge France midi ak si. ah Cheikh yàlla na yàlla fa yiw. Ah, El Hadj Askia ngi lay ndokkeel ci sa bisu suñ Tuubaa sa sëriñ. di la masawu coono. di la ziar. di la sargal bu baax. te di ñaanal yàlla. yàlla na la yàlla may gudd fan. may la wér yokku la tijji la nee na te dootoo tëju mukk loolu daal moo doonoon kàddu yi màggal nee na sëñ Tuubaa na ko boppam nee na lu def nee na bu déwénee di nga def ci kaw boo ko xamee nag kon yal nañu yàlla sàmm may ñu tànk yi bay ñu wér bàyyi ñoog suñu xel te dàqal ñu seytaane loolu daal moo doonoon kàddu yi gërëm nañu ñëpp gërëm nañu kaay baax gi ñu doon wax kaay baax nag jàpp leen ni mi di surveiller nee na fu mu gisee lu mu war a wax dala ko wax ba ñu dab wasalaamaaleykum. yii ma yëkkati dama koy jaarale ci sëñ moodu Cheikh Ahmad Bamba turam. Balla Dior Mbacke mu yëkkati ko féetale ma ko fépp fi nga xam ne war naa féete te dara du yàqu ndax bunt bi la Sëriñ jox ci sa mbokk yii nga xam ne su ñu dëkkee ñu Ndakaaru wala ñu dëkk Cap-Vert ba mën a am jàmm ñoom ñoo tax rawatina ak yow mi nga xam ni yaay chef suprême lébu yi nga xam ni ñoo nekk ci senegal gi yépp fu ndox di bal rek yaa leen yilif suñu amee jàmm dañ leen jàmmal ngeen jàmmal ni ngeen war a jàmmal ñoo am yaa salaam su ngeen ñu digalee li war ci seen suuf si nga xam ne yéen a ko moom te suñu yoon nekku ci ñu nekk ci ay safaan day am solo nag ci bis bi nga xam ni mooy bi tukki bu rëy bi nga xam ni fi tool nii temb sëñ bi ya mi ngi tàmbalee yàlla di ko ràng ay mbaax ci guddi gi mu ne yàlla lépp loo xam ne sédd na ma ko ci sama yoon bi yàlla naa ko bokk ak yéen ñi ngeen xam ne yéen a may eh, sant yàlla ci bis bi kon yéen da ngeen di dugg ci sant gi jaar ci sëñ Modou. rajo mu mel ni ku dul jox cër ku dul joxe cër kenn du la jox cër. allo. mu ne ku dul joxe cër kenn jox cër. damay fàttali benn benn benn xisa bu gàtt rek ci soxna Aïcha ak Seydina Muhammad ndax ñëpp xam nañ ni jigéen yoonam nekkul ci xare bi suñu borom indee xare yi ci lislaam na kenn nañu jël la jël ca ñoom kenn ku nekk jëlee lañ nangoon ci yow tey tey taxawal yàlla ca la nga xam ni mooy li war ci ci li ngeen war a def te ma santaane ko soxna Aïcha di seeta seeta seet ba bis mu ne yonent bi sallallahu man de damaa jaaxle mu ne ko loo jaaxle mu ne dama gis ci alxuraan fu ñu nee muminina muminaati saabixiina saabixaati saalixiina saalixaati ilaa axiril aaya ba mu jeex mu mel ni kon lii ñu wax ne ku ci xare dem dem dem àjjana xanaa bokk ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaxle ndax bëgguloo Aïcha dara jot ko ndax moom rek la jël ci ndaw yàlla dogal ñu toog ab diir yàlla wàcce ay alxuraan ne ko Aysa ne Muhammad waxal Aysa ne ko képp koo xam ni dem nga taaf kaaba gi def ko yoonu umra bokk nga ci ñi dee ci xare Badar wala xare Yamaama wala xare yu rëy yooyu xalal soxna Aysa moo indi umra ci lislaam ba ñu mën a jotee ay ajjana ci yu am solo yu mel kon man damay jàpp sama soxna si rek Aïcha ndax lu baax lu nekk wëndil ma lu may gàllankoor mu fëlal ma wala mu jaral na ko lu kii dama koy may saltige dama koy may la grand saltige si dérangement di gopp ay ne ku dul joxe cër kenn du la jox cër damaa bëgg ngeen déglu ma ñu déglu Alaaji Askiya wala ma wàcce leen foofu sëñ Modou dañ ne ku dul joxe cër kenn du la jox cër. jërëjëf mokkal rek am solo góor gi jël doomam yóbbu ko ci daana góor goo xam ni ki mu ko yóbbu mooy sérif ba mooy borom dëkk ba mooy aafis bi mooy aalim bi moo yore dara moo mën nit ñi cet moo mën a nit ñi dara lépp moo koy def moom kenn góor gi jël doomam yóbbu ko mu dafa ñetti at mokkal alxuraan en boobu bi mu mokkale alxuraan moom ak ki mu bokkaloon néeg ñu ànd ñoom ah, ah, ne gaa leen dem ñuy seetu gi suñu waa kër ñu déglu ñu wala mag ña fa nekk déglu ñu ba ñu xam ne ñun fa ñu jógee jàng nañ fa alxuraan su fii dañ ñaan dañuy seet sëñ mu téyel la ñu ne xaar ñu delluwaat fa ñu jógee comme góor gi dafa sonnoon ci seen dëkk ak yow so yóbbu njabootam ñu jàng ji ak ku nekk yóbbu sa doom ñu ne kon kaa ñuy seet ña nga xam ne fa la ñu dëkk te te te génn ñu dëkk ba mu téyel xale yi ñu déglu leen xool ndax liñ jàng baax bu ñu demee ñu téyel leen jàng bi rafet lool mu am ay balaxa lool am maarajul uruf lool lépp baax ñu def fa ñett fan ni bi kenn si ñoom feebar ne ko man de damay dee wan dama bëgg su ma deewee su ma feebaree suñu sëriñ bi sérif bi bu mu ñu ñaanal bu mu ñu ñaanal bu mu ñu jox dara mu ne ko ah mooy suñu sëriñ mu ne ko wante bu ma ñaanal mu def dara lu am solo lay nekk di mu ne ko su ma su ma su ma deewee it bu ma bu ma sang wante suñu ma suulee it bu ma ñaanal nag ma ñaanal yow xale ba feebar la ma waxoon dal ko mu bëgg ko ñaanal mu ne ko déedéet moom waxoon na sax ne mën naa ko ñaanal ndax mu ne ko waa dëgg la ndax lu gën a yey gën a jege ndax yéen da ngeen da ngeen mu gën ñeewantalu xale dafa am solo mu ñaanal xale bi bu ngi doog a bàyyi ñaanal nit xale ba dee mu ne waxoon na sax ne su fi génnee àdduna naa ko sang ndax xëy na ñun daañu am nañu kumpa suñu diggante mën na ko dëggal ñu war koo suul mu ne ko ah waxoon na nag boo ko suul nag mu ne bisimilah mu ne ko ah dee doo ko suul de tax tam moo ko santoon ni ma santee la ma sante lii mu ne kon bisimilah wax ja xaw a ñagas nag kon ñeñ ngi dikk ñeñ ñi xalbul salim kon nekku fa ñu gas kàmb bi xale bi dugal suul ñaan bi mu ñaanee pare ñu ñibbi góor gi ñëw fekk ko si néegam fëgg ko si guddi gi ne lu tax nga def lii moom tam mu ne ko ah dañ ma ko sant de moom moom mi fi nekkul moom ko sant mu ne ko lu tax mu ne ko dafa gis ni diir mu nekk fii jàng fi ñetteet mosu gis benn nga jox cër kenn te ku joxe cër yàlla la jox cër kon wasalaamu aleykum wa la des nag ca la jëm ci mooy nag kii moom ko war a waxal cër kii nga xam ne jox ngeen ko soxna si muy ba jógee si sama kaw sëñ Modou ah man day sama wóolu jox naa ko sëriñ Sadio Mbacké rek. tey tey sa waay sama yëngu gii jox naa ko rek samay jéego jox naa ko maa ngi gërëm yàlla ba mi ngi feeñ ci man. waaye mee ngeen di wax ci xéwal yi ma sëriñ Sadio Mbacké defal la bokk. parce que président la de la république man ci xéwal yi ma sëriñ Saliou Mbacké defal la bokk kon man dama naan laa xawfun alayhim ma dara la may wax loolu wax ko la nga xam ne war nga ko waxanteeg sama mbokk yi ah salaam ne si gën a gën a leen nga wax ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf keroog ba mu wootee kin faat wootee conférence nee na ba mu gëstoo da leen a gis ci wetam ngeen ànd ak moom ak kàddu góor yi ngeen fi yëkkati ak la ngeen nekkoon ne sa xel dal ñu ngi sa ginnaaw ku ne xam na ne tuubaa ni mu mel ngeen fekk si ko waat fii muy ñaari yoon di loo xam ne lu ko marqué la lu rée la ci moom lu sore la ci moom waaye nag nee na yéen lébu yi ku ngeen àndal du ngeen ko war comme sën Touba ñi nga xam ne mooy yaakaar yi suñu yaakaar teeg ëllëg ba muy dem ci géej gi yéen yéen yéen la àndaloon ngeen waajal ko ba mu dikkee yéen ko teeru kon yéen ku ngeen àndal rek ngor ngeen àndeek moom ku ngeen àndal rek xelam dina dal ndax sëñ Tuubaa tukki bii mu tukki woon ba ñëw danañ ma santale yàlla ah ngeen toog ci tànt bii sëñ Muntaxa Basiru day bu gisee bii jotaay xolam dina sedd guddi jot seen maam ba muy ñëw di lépp saa xewar Fatma bokk ajatu ngoy maami ajatu ngoy faal jee loolu ànd ànd bokk la du ànd hasard Alaaji Kiya toog di deret Serigne Touba xam ne mbaakool kër maamam sëñ Touba lii mu am tey lii mu am nii tey lii ko yàlla may ba mu jógee du ko uti kër maamam rek la dem ñu ñu wattu alxuraan di jigéen ñu sel di ñoo xam ne addi ak yàlla luñ ci lekk bu nu géexee mu rees ndax dana lu baax boo ko bëggee bëgg sunu borom defal la ca da ànd ak jigéen ju baax mu ñëw kër maamam moom mii rek. kon waxtaan wi ñu fi waxtaan yëpp moom mii mënoon na koo wax rek ndax xam-xam bi ak yar bi ak li mu ci Serigne Touba waaye Touré ngay kilifa goo xam ni ku dégg Askia Touré dégg turam ba ñëw toog ci wetam rek boo ko gisee gën koo fonkaat ndax yar bi ak yëg gi mu yëg doomu aadama yi. Aïta Diagne Ajaratu Ngoy nee na mi ngi lay sant bu baax ndax da ngeen a bokk menn maam nee na tubaar El Hadj Malick Ngom mii fi toog ak jaraafi ak saltige yi ñoom ñépp tey bu nu taxawee fii yow sa taxawaay ayta nee na sant na la bu baax a baax a baax. yow mënoo ko wax. waaw dama mhm. ngoy nee na. bu leen bu leen nuyee ba pare. sant sama borom këram bu baax bii. sant na sant ay waajuram sant baayam ak yaayam ju baax ji. sant sëriñ Touba mi ñu fi dajale tey. sant fi dajale tey. sant sëñ Muntaxa xalifa général de Mouride. sant sëriñ Saaliw sëriñu borom këram sëriñam. di sant si Abdoulahad a Jaxate seddoom. nee na mi ngi nuyu ñëpp. di sant ñëpp. nee di kontaan lool ci ñëw lébu yi. di njëkkee ci cant gi. soxna Ayta Jaañ mi nga xam ne. nee na mbokk deretam nga. ngeen bokk ba Jaxu ba. ñu daje ci groupe bi te rëccuwul groupe yi ndax mbokk mi bëri xam na leen ci ay jàpp ko ay te téye ko nee di ko wax lébu ndax moom dafa bëgg lébu yi nee na bu waxee moom waxi lébu rek lay wax dafa bëgg lébu yi nee na alab lébu rek loo koy wooy saa bu koy mu ne alab lébu wala mbo ma mbokkab lébu nee dafa bëgg lébu yi nee na mu am conférence ñoo ko invité ma lébu yi. nee mu invité leen. ñu déplacé wu ñëwal ko. ku ne xam na ne ay kilifa yu mag lañ ci réew ay notable lañu. caaxaan yëkkatiwu leen. kon loo tax seen ñëw bi dafa rëy ci moom. te moom ñoo moom Ndakaaru. nee na bu xewle ngeen jóge ba Tëngéej fekk si ko Touba gii. nee di sant El Hadj Malick Ngom mi ne mooy seen kilifa ñoom ñi moo leen jiite. jiite ñëpp. kon cant gi ci moom la ko teg ci loxoom mu séddale ko ñëpp nee na li tax mu ne bërit ñëw ba fi day ne wane cofeelam ak mbégteem nee na ndax nee ndax mbégte mi mu ci am ak ni mu ko sentir ak fi mu jaar nee na man mi mënu maa wax lépp ndax li ci xolam mënu ma ko wax nee na moo ay ah, dañuy wax ba xaaju guddi nee na ñoom ñaar rek ñoo ko xam nee ndax dañ di passe téléphone ñoom ñëpp kon ñëw bi dafa rëy ci moom Touba xat na Touba tàng na. ku ne xam na ne màggal day ku ne xam na ne màggal day xat. fa nga dal rek balaa nga fa dem sonn. nga sonn. ñu def déplacement dérangement. ñu def déplacement def dérangement. fekk seeti ko fii. nee na mu ñaari yoonu fekk si xolam sedd na lool. nee na mi ngi feddaliwaat kóllëreem ci yéen. di feddali cofeelam ci yéen. di wax ne xolam seet na lool. nee na lu ngeen nekk moom mi ngi seen ginnaaw. te na ci ànd ak boroom kër na ci ànd ak yéen nee du nuyu déedéet sëriñ tubaab fi toog sëñ Modou Mbacke balaay sa buri nee di xalifa sëñ Balla Coor mi nga xam ne seen xarit la di seen kóllëre nee tey la xam ne mbokkam nga kon xamanteem ak lébi mu ngi koy jural lu ne ndax maa ba jox dafa yaatu nee na bëtóor ba moo meññi maamam nee na bëtóor ak maa ba ñoo bokk ndey ak baay nee na kon balaay sa yow mbokkam nga deretam nee na bokk ak lébu yëpp nag nee na Sénégal boo juddoo da ngay nekk mbokkum ñëpp nee day gërëmaat di sant rek di kontaat nee di leen wax ne bég na réy na ci moom nee dañ koy seedal nee na ci barke Serigne Touba nee na Mbacke Balla ñëw gëree nee mu nekk nee na boo jugee ba sa dal ak gan ñaak ñëpp ñëw fekk si ko fi nee na loolu Mbacke réy na ci moom nee na bég na lool ci barke Serigne Touba sa maam nee na lépp li ci xolam mënu koo wax ndax bu yónnee ci yéen ne waat bëreet Maodo Malick kon li ko def rëy na ci moom yàlla yàlla wa ma amani xawfun wala amal warasatam shukuri li baaxin asbadal jumla annahum may yuqir rabbi inda majrim